xew nag du lenn lu dul loo xam ne yàgg na door avant sax élection yi di jub ba ñuy wax parrainage bi fekk nañu sama ordinateur ci sama oto jël ko ñu ne déetawaay ñu dem suñu siège dajji ko jël ordinateur bi ñu defee ne foofu lay yem infographie bi nga xam ne moo yaroon information ñu yaroon yëpp ñu jël ordinateur am ñu defee ne foofu lay yem ñu war a def suñ meeting euh, d'ouverture bu njëkk ci benn stade Pikine ban stade ban stade lañ ko war a def Alassane Djigo ñu ne ñu du ngeen ko defee fii barki démb ñu dem Kolda ma dajeeg fàq benn beneen candidat muy le président Macky Sall ñu ne ma doo dem fii arrêté suñu cortège ñu defe ne foofu la yem ñu ñëw démb jóge Saraya jaar Kédougou ñëw Tambacounda waa Benno Bokk Yaakaar xotti affiche pur te loolu damay jël témoignage ña dëkkoon foofu yëpp suñu affiche fa nekkoon yëpp la ñu xotti mu am altercation diggante ñoom ak journalistes yi nga xam ne dañu neutre defuñu dara bokkuñ ci ñu commencé leen bundu ba jàppante am ci biir ñu waru leen protéger ñun. ñu jóge foofa yeewu ne dañuy dem Kidira parce que loolu la loolu mooy suñu programme jéguñ Tamba rek pour dem Kidira pour dem Kidira suñ programme loolu la wone ñu ne dañuy dem Kidira ñu ndar ndar képp ñu ci benn pont bu nekk Tambacounda ñu defee ne polisu su Tambacounda daf ñuy protéger ndekete ñoom dafa mel ni dañoo ànd ci mbir mi xale yi dar ñu di ñu sànni ay xeer. ñu wëlbatiku jël beneen yoon pour dem Kidira ba ñu demee Kidira lu mat téeméeri Jakarta ñenn sax dañu wàcc benn L200 kar ñu foofu nekk ci wetu raay bi jël ay xeer di ko sànni lakk su ñeenti oto blessé ay journalistes blessé suñuy sécurité blessé cortège bi ñu jóge foofu. dem Goudiri jóge Goudiri gendarmerie jël ñu en charge partir de Goudiri ñu dem jóge Goudiri dem Kidira bi ñu demee Kidira lañ fa fekk ci gendarme ëpp na 200 bi ñu ñëwee ñu wàcc oto yépp fuyee bagage yépp jël élément sécurité yi yóbbu leen Tambacounda di leen entendre ba ñu jógee foofu nag ci la jël en charge ba fii fu ñu dem. ñu taxaw ñeneen jël taxaw ñeneen jël ba fi ñu toll di wax nag ne violence bi yéen ñëpp xam ngeen fi mu jóge man sama discours bi ma njëkk a def discours enregistrement bi dama ne damay ñaan ñu def élection yoo xam ne ñu dañ koy def ci jàmm ak salaam wante ñi ñu jàkkaar lool loolu du seen préoccupation coow lu fi am ñoo ko def nan la ñu nekk ñaar wala ñett ñu tuuti dem ci benn dëkk téeméeri nit wër ñu di ñu sànni xeer ba gaañ fu ñu bëri loolu am nañu ko moom waay waa benn boo ko yaakaar ñoo ko moom te nag réew mi justice daf war a dox parce que ba ñu jàppee suñu élément sécurité dañ leen yóbbu Tamba xale yi ñu lakk suñuy oto toj suñu bopp ba léegi jàppuñu leen te ñu ngi leen teg bët ndar ñu képp biir Tamba. tey bu fekkoon ne delluwuñu ñun ñëpp la ñuy rey ah, léegi nag bu fekkee ne juróomi candidat munoo assurer seen sécurité ci réew waaye nan ngay assurer sécurité réew jaam ji dox ba pare ngay dóor ci wàttitu yi dégg naa ñu ne ministre de l'intérieur euh, def na benn communiqué ne dañuy aar candidat yi mais loolu loolu bañ ko waree def du léegi élection yi presque campagne bi presque jeex na bañ ko waree def du léegi waroon nañ ko yàgg a def donc li may wax nii dama koy wax waa Sénégal di ko wax bitim Sénégal élection du fo réew bi ñun ñëpp ñoo ko bokk nit bu demee ne day dem élection présidentielle da nga war a jël en charge kaaraangeem parce que mun nga ko deux cent wala trois cent gendarmes yama accueillir Kidira bu ñu jëloon genn wàll gi rek jox ko candidat bu nekk suñu kaaraange la preuve ñoom ki dira lañ ma jëlee bi fii fu ma ñëwee ñaari camion gendarme ñoo may ñoo may euh, euh, entouré dama ma egg si nekk dans de bonne dans dans d'excellente sécurité donc loolu ñu wax ne nañ ko def bu ñu koy def nañu xam nuñ koy defee du ñaari nit ñetti nit la ñu soxla nañu indi ñu bëri ñoo xam ne fu ñu dem kenn du xalaat jegi ñu sax bay def dara waaw bu fekkee ne dañ koy wax rek parce que tàmm nañu loolu tàmm nañu wax dara te duñ ko def loolu moom seen mbaax la ñoom tàmm nañ wax dara te duñ ko def candidat élection présidentielle du caaxaan dañu war a sécuriser réew mi dañu war a sécuriser candidat yi mais bu ñu ko mënul ñu bàyyi bu ñu ko mënul ñu bàyyi président bi fi nekk nag dafa jàpp ne fukki fan ak juróom moo ko fi dese wala fukki fan ak ñaar a ko fi def lu ko neex lay def na xam ne nag réew mi moomu ko tey moom ko ëllëg bu ragalee dem élection na ko wax tout suite mais ñun dañoo fas yéene dem élection dóor ko mu daanu. voilà voilà voilà maintenant maintenant message message bi may lancé ñëpp du militant pur rek dama koy lancé militant pur lancé ko sen sympathisant pur lancé ko waa Sénégal yépp bu fayonte am ñun ñëpp dañu continuer li des li des ci campagne bi ci jàmm ak salaam may masawu nag ñi nga xam ne parce que dañ leen a utiliser ay xale yu tuuti la ñu utiliser ne leen dem leen kaayaase oto ñii xale yi defuñu dara ña leen yebal ñoo def dara may wu nag bakkan yi ci rot di jaale seen famille ñii nga xam ne ay jàmbaar lañu ñu nekk ay journaliste di ñu accompagner guddeeg bëccëg am na ñun ci gaañ bari nañu ma leen di masawu ñi nga xam ne ñoo yore suñ kaaraange ñoom ñoo jàmbaar dëgg lañu bu nekkutoon ñoom ñun du ngeen ci gis kenn ñun ñëpp la ñuy rey ñoom ñoom dañu ko bañ ñoom dañu ko bañ. ñoom dañu ko bañ ba ñoo doon protéger sax policier ya bañu bañ ñu ndàkkepe ca pont ba ñoom dañu protéger waxuma ñun wante policier fa nekkoon sax dañ leen a protéger donc bu nekkutoon ñun. c'était devant nous. c'était devant c'était devant toi. voilà très bien tu étais présent. dama ne policiers yi sax dañ leen protéger tey bu ñu fa toogoon deux minutes ñun ñëpp la ñuy rey jël oto jël essence sotti ko ci taal. mu tàkk xam nga ku def loolu ña nekkoon ci biir nga bëgg a rey donc yéen bu leen fayonte na ngeen fexe ba terminer élection yi ci jàmm ak salaam appel boobu nag maa ngi koy lancé nguur gi sécurité réew bi la ñuy soxla maa ngi leen sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah